nekk professeur au collège El Hadji Ibrahima Thiaw nekk agent de l'État euh, monsieur Guèye ñu ngi lay nuyu di la ziar c'est un plaisir euh, dalal la ci plateau matinal Allô Sénégal. maa ngi leen di fay Aïcha voilà di fay tamit euh, ñi nga àndal ñoom Pape Malick Amadou Tall ak Kadior. Euh, dalal ak jàmm alors nga bàyyeekoo fële ca Bargny laataa ñu dugg carrément euh, ci li nga xamante ni moo la fi tax a ñëw euh, dañ lay bàyyi nga defal ñu un peu la situation li nga xamante ni moo fa xew diggante yow ak ki la tooñ ak ki nga ci ni moo di lu chef de police fële ca Bargny. waaw eh, soxna Aïcha balaa may door nag eh, bëggoon naa ndax nag am murit nga dalal. Eh, mënumaa toog fen te ñaanaluma sëriñ Muntaxa liggéey bi mu nekk mu yegg ak jàmm di ko ñaanal yàlla na te bëgg ci moom yal na yàlla bëgg ci moom su ma soo foofu eh, man maa bañ a nuyu eh, sama doomu ndey Griff Sougou bi ne Atlanta ak eh, Khalifa Fall Serigne Mbaye Fall sama xarit alors euh, di yeesal njëbbal si Serigne Cheikh Serigne Salim Mbacke di euh, gën a fësal tamit sama ñàkk euh, sago ci Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makarima Ahla di nuyu tamit sama mag sama magi bopp Omar Gueye eh, ginnaaw ba ma nuyoo tamit taaw njëkk juddu na ko baax Omar géey nag dafa doon ka nga xam ne ci moom laa topp ba may tudde taawam booba bàyyi a ngi fi mag a ngi fi ba pare nag yëgal ma avion yi kooku mënu ma ko bañ bi may ñëw fi sax tàggu ma ko parce que damay benn mu téye ma nuyu ñëpp rek waaw gis waaw di nuyu waa ban yëpp nag mhm. góor ak jigéen di nuyu waa collège Ibrahima Thiaw góor ak jigéen di nuyu adduna bi yëpp bàyyiwuma kenn fu waay mën a bokk ak fu mu mën a jógee maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn waaye neen waaye soxna Aïcha balaa may door it bëggoon naa anticiper si 8 mars bi nii mënuma bàyyi jigéen ñi gannaaw eh, commencé si sama soxna elle est transitaire elle est waaye nag ne sarax ci Maimouna Ndour Faye nag sama jigéen parce que Maimouna nag dafa doon ka nga xam ne maa ngi ko commencé suivre depuis Canal Info mhm. di jigéen ju mën góor nag ka nga xam ne góor yabu ko am na xam-xam am na taxawaay am na fulla ma jógee foofu nag nuyu sama rakk na fi jéey parce que dañu bokkoon bari ñi nuyu Astou Dione eh, vraiment muy sama jigéen yu baax mais soxna Aïcha yow mii it soxna yow mii yow mu taaru mii yow mu yànj mii <laughs> maa ngi lay souhaiter tamit bonne fête le 8 mars. merci yàlla na jigéen ñi siggi yàlla bu jigéen amatul ko metti ci àdduna. merci beaucoup Amine. voilà bu ma jógee foofu nag. damay mhm. wax ci li ma andi fii. Eh, di wax wa ak waa Sénégal di wax ak waa Bargny ñëw fii ci plateau 7TV ngir bokk ak ñoom sama naxar. ak sama mitit ak li tooyal sama xol ba ma jógee bari ñu ñëw bu fii di gërëm nag waa 7TV di ko jaaral tamit si kilifa gi ba tey moom may mën a ndur fay di ko xamal ne tey sama eh, eh, toog ci plateau bi nii nekk na ci liy nekk di ma sauver fi ne nii socialement parce que man nag dama di gor di ab murit di ab jullit am lu ma metti lool te amu fu ma ko waxee. lan moo la metti. li ma metti nag mooy eh, man dama dëkk Bargny si koñ bu ñu naan fenkoon wala sant yàlla. donc ka nga xam ne nag xam naa ne président de la république mënul lépp xam naa ne maire mënul lépp may jël sama xaalis di woo xale yi di ko bokk ak ñoom ñuy defar koñ bi loolu foo dugg si sama koñ dañ la koy wax am benn waaye bu dëgër bopp na ba nga xam ne day sotti ay ndox yu salte ak ay mbalit ginnaaw ba ñu jaaxlee boole ak ku ne sottiwul ma interpellé ko bi ma ko interpellé mu def ay saaga muy injure publique si tubaab ba nga xam ne c'est un délit puni par la comme dëkk bi dafa am yoon ma dem police bu bari Bargny déposer une plainte pour injure publique bi ma déposé plainte ñu ngi may yóbbu bureau contravention muy lu ma jaaxal nag ba ma fa demee maa ngi fa nekk ak chauffeur yi nga xam ne ñu ngi ñëwoon pour récupérer seeni permis mu doon lu doy waar fa laa commencé am gàcce parce que man nag jàngalekat jàngalekat laa te du ma cuune te mine de rien j'ai cinquante ans aujourd'hui ba pare tukki nag ba tey ma daal rek mu déglu ñu à deux reprises si ñaari fan yi wóote bi ma sentiré ne y de la diversion le dossier n'est pas en train d'être au sérieux j'ai insisté pour être entendu sur procès verbal ce n'a pas été fait lan la ma wax nañu dem ci bureau chef de service bi. chef de police bi. ñoom moom chef de service lañ koy tuddee. il est le chef de police mais boo demee bureau chef de service lañ fa bindal. d'accord. te euh, di ma permettre dara mooy du jaaragul si turam saraax pour euh, souci protection des données personnelles. waaye nag turam mu ngi commencé A santam commencé B loolu ñeme naa ko. waaw léegi ku déposé plainte ñu déglu la enquête préliminaire eh, établissement PV def si lan ngay def si bureau chef de service mu lay sermonné ay bon sa plainte yaa ngi bon. Euh, baat yooyu en tout cas dégg naa ko fa parce que dama bëgg baat yi nga xam ne en tout cas. Euh, amul témoin non moom moom moom faaw nga wax ñu. li la mitti. waaw léegi dégg naa fa baatu. Mhm. enseignant qu'est-ce que ça veut dire si sama plainte lool lan la jotee ak enquête préliminaire enseignant qu'est-ce que vous enseignez voilà qu'est-ce que ça bon ma wax ko li may enseigner bon mu ne ma bon woy bon parce que yow yaa ngi bàyyi say cours ñëw fii di baggante fii et te tabagante bi am na parce que moi j'ai fait le pied de grue devant ce ce ce bureau contravention vraiment pendant des jours et des heures dilatoire bi am j'en ai référé au procureur ma dem si procureur wax que ne dilatoire mu ngi si am si dossier bi procureur jox ko soit transmis un soit transmis pour ñi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bu ko procureur bindee mooy yow officier de police judiciaire bi nga xam ne yaa ngi doon def enquête préliminaire andil ma dossier bi ndax man maay dogal li nga xam ne moo ci war a topp n'a pas obtempéré le chef de service maanaam euh, dégluwul soit transmis bi. Mm-hmm. mu continuer bon voilà man ma demaat encore ci procureur nekk ah procureur man de sama dossier ba tey bougé wul mu def soit transmis ma dem si euh, secrétariat bi di xool sama dossier fu mu toll secrétariat bi benn waay génn fa yóbbuwaat ma bureau de service bi. muy wax ak man ne maanaam yow yaa ngi fi andi kii am na lu ma la waxoon nga fiy dellusee et cetera ça c'est une petite affaire je transmets pas n'importe quoi au nee na sans plainte c'est n'importe quoi nee na c'est une petite affaire maanaam la nga xam ne pour ñuy di seetaan tekkiwul dara ba pare nag utiliser une expression ba nga xam ne ça m'a très mal maa ngi jéggalu si ñu koy dégg mooy vous vous fichez de te loolu nag xam nga tax metti ma dama doon góor nag doon kilifa yor jabar yor ay doom am 50 ans aujourd'hui dama ne ku mag Emmanuel Macron président France doo xale ku mag Aliou Sow ministre de la culture doo xale mais ba tey ku mag Barthélemy Diaz maire de Dakar kilifa ak Dakar doo xale te man du ma xale te du ma ko mos léegi bon sëñ bi. allez-y yow est que jaawale woo vie privée ak vie publique. lu tax nga laaj ma loolu. mais question la tontu la est-ce jaawale woo vie privée. maanaam publique parce que yaa ni da nga ni plainte bi ñu bi nga bi nga def. Mhm. Euh, injure publique la. waaw lan mooy injure publique. injure publique mooy ay kàddu yu tegginewul maanaam ay saaga yoo jël teg ci gor. bu mu a doon. loolu mooy injure publique. et c'est un délit puni par la loi. mais loolu mais publique. man pour man mooy injure publique. non loolu loolu le fait nga def plainte. Mhm. dem yóbbu ko ñun la lii c'est un délit mineur ça veut nekkul injure publique xam nga lan mooy injure publique. waaw nga toog ci télé. Mhm. ñëpp di la seetaan. Mhm. nga ni diw ba ñëpp di ko dégg. nga jaar fu ñaaw wala nga nekk ci benn réunion. ñëpp di la seetaan. nga jaar fu ñaaw loolu mooy injure publique ki nga ki nga xamante ne mën nga porter plainte c'est que justement foofu nga juumee ah waxoo loolu. vous parlez vous parlez à quelqu'un qui est très respecté au Sénégal qui est très respecté. non man waxuma loolu dama ne pour son niveau non xam nga. non dama ne yow non danga may déglu. on s'écoute vous parlez à quelqu'un qui est très respecté pour son niveau. non mais j'arrive j'arrive j'arrive je vous ai écouté je vous ai écouté. tout le monde se j'apporte des éclairages il faut m'écouter. non mais dama ne. oui d'accord dama ne il faut être calme d'abord ah danga ñëw pour expliquer ñun dañ lay déglu comprendre nga di lay poser ay questions ma ne yow est-ce que. da jaawalu vie privée ak vie publique parce que pour man li ngay wax ni c'est une affaire privée mais nga ñëw si plateau télé di koy wax parce que yow li ne chaque jour nga dégg fi nga ci mbedd mi am ñu fi saagante et tout affaire yooyu noonu le fait ko nga dem police je sais pas wala gendarmerie di fay porter plainte ñu ne lii c'est un délit mineur pour man ñoom ils ont raison parce que loolu laa la wax ma ne la man la après nga wax parce que injure publique comme lu ma la expliqué loolu par man su ma taxawee ci micro bi à la ma ni diw daal di jaar fu ñaaw wala moo wax loo xam ne loolu injure publique la loolu la ñu qualifié injure publique m'écouter finalement alors nous vous écoutons allez-y pour ne pas persévérer dans l'erreur vous êtes en train de persévérer dans l'erreur allez-y ñu ngi lay déglu quelqu'un qui a un très bon niveau en français culture juridique vous êtes trompé vous savez pourquoi parce que le monsieur dont il s'agit m'a injurié publiquement comment ça publiquement eh, la ruelle devant une borne fontaine et devant des mais si monsieur ah vous parlez à un professeur je le dis sans prétention mais c'est vraiment c'est juste que je le dis vous parlez à un professeur quelqu'un qui a un bon niveau en français et quelqu'un qui a une juridique alors il m'a injurié donc en public en public c'est-à-dire devant des gens qui passaient dans dans dans le quartier en plus mmh. Il y même la matrone qui, était présente. Mhm. devant une borne fontaine, devant des gens qui, étaient là-bas. C'est ça Monsieur Gueye. Il ne m'a pas injurié dans une chambre, il m'a injurié Gueye. dans le quartier devant tout le monde. On va permettre Donc, à Amadou, s'il vous plaît, Ne, soyez pas, ne soyez pas sur la défensive. N'ayez Wartan. Nous le mettre, nous pouvons partager avec Sénégalais, n'est-ce pas Non, ne vous permets pas. Amadou s'il vous plaît. c'est mhm. vous qui ne connaissez pas ce que vous dites. alors vous ne le connaissez pas et les juristes qui sont en train de regarder euh, l'émission. on avance un peu sur le débat. vous vous êtes lourdement trompé revoyez votre copie. non mais ah, non ah, c'est pas vrai vous vous trompez lourdement vous méconnaissez le sens de de je vous dirai pas que vous ne méritez pas d'être sur ce plateau mais je vous dirai de revoir votre copie. et les euh, gens e pas sur la défensive. oui d'accord oh, il y a des il de questions qui sont là. da am lu la métti ñun aussi ñu bëgg ko partager ak téléspectateurs donc on se calme. et on se parle calmement. Amadou en tant que suñu juriste maison. ci cas bi ci dossier bi lan moo ci anormal. je pense que ne fi mu ko fi mu ko fi mu ko fi mu ko fi mu ko waroon clamer dem na fa ko clamer. Mhm, mhm. premièrement cest à comme ni mu ko waxee un jour la. un jour nag mën nañ ko gis ci code pénal donc mën nañ ko jàpp comme aspect boo xam ne c'est c'est pénal donc injurié nañ ko te moom jàpp nañ ne sax autorité la parce que c'est un enseignant parce que enjeu public dañ ne dafa am ay catégorie de personnes yoo xam ne ñoom nga koy wax pour ñu jàpp ko comme enjeu boo xam ne mën nañ ko def un délit boo xam ne mën nañ ko régler au niveau des tribunaux maintenant d'abord li nga xam ne moom la def moom la njëkk a def c'est-à-dire dem na à la police def na li nga xam ne mooy plaintam donc c'est normal et c'est vraiment normal donc li si des mooy ñu transférer li nga ne mooy dossier au niveau des tribunaux parce que police amul compétence su juger donc am compétence mooy recevoir li nga xam ne mooy la plainte def li nga xam ne mooy enquête bu defee enquête jébbal li nga xam ne mooy procureur c'est le procureur moom mooy jox ban suite lay joxe par rapport ak ak li nga xam ne mooy dossier bi mais aussi ba tey mi ngi koy waxaat cest à dem na tribunal tribunal police jox nañ ko li nga xam mooy sont transmis c'est-à-dire procureur jox na ko soit transmis c'est-à-dire soit transmis mooy procureur bu ñu ko saisiré ci benn dossier bu yegg tribunal bu fekkee ne moom mënul def li nga xam ne enquête bi daf koy dellowaat la police c'est-à-dire ne leen yéen defal leen ma enquête bi bu ngeen paree ngeen jox ma dossier bi man ma apprécier donc procureur jox na leen li nga xam mooy soit transmis léegi deuxième phase bi mooy police encore dafa war def li nga xam mooy enquête bi delloowaat ko le procureur bu ko delloo nag le procureur foofu la le procureur di xool ban suite lay apporter mm. vraiment à l'affaire maintenant nag li nga xam ne wax na ko aussi c'est-à-dire la police waruñu taxaw foofu naan lii dossier bu ndaw la wala dossier bu ndawul c'est-à-dire dafa war a dañ la jox ndigal procureur daf ko jox ndigal donc na def dossier bu pare mu dellowaat ko procureur procureur boobaa moom mooy apprécier si délit la contravention la walla délit la wala jar na jugé wala jarul darul jugé kon boog ci loolu je pense que c'est la police moom moo am tort actuellement c'est-à-dire bu ñu la joxee liggéey danga nga koy yeggali boo ko yeggalee le procureur moom mooy apprécier bu fekkee ne dañ koy yeggali wala waruñu ko yeggali ay su ma la bu baax police dafa war a def enquête bi jàllale ko mais amuñu prérogative pour dire euh, lii mérite na pour mu continuer wala mu yam fii benn benn affaire laa <laughs> yëpp ay affaires yoo xamante mhm. mais du dépasser police. am na affaire yoo xamante jarul muy egg si procureur c'est le même am na yoo xamante police kasa lay yem. jarul jël transmettre procureur. non c'est faux vous vous trompez monsieur. non mais mm. yow da nga jàmm non mais yow da jël benn affaire man lu ma. et monsieur a fait un a fait loolu moo tax ñu andi ko. kii affaire procédure la mais dama la. mais dama la. Mhm. ci droit. Mm-hmm. am na ay affaires yoo xamante ni police la yem. du egg procureur parce que parce que ay délits la d'accord non dama yow comme sa cas bi parce que xam nga la moo ma dérangé si yow vous trompez non xam nga la moo ma dérangé non xam nga la moo dérangé li nga ne injure publique la alors que nekkul injure publique xaaral ma la xaaral ba ma la li nga ñëw si plateau nga ne injure publique nga ñëw si plateau télé di fi réclamer affaire yoo xam privée la alors on avance s'il vous plaît monsieur Gueye monsieur vous plaît après quelques coups de fil passés il nous a été rapporté que en fait xuloo la woon xuloo la woon yow ak moom xuloo ak ki ki la saaga ah ak ah, chef de ak moom ak ki la mhm. parce que ñëw nga di ko wax loo ko loo tontu la lim loo tontu mooy insulte publique bi ngay wax noonu. Mhm. c'est ce qui nous a léegi man sama problème mooy yow bi nga xam nga sa njëlbeenu wax yaa ngi wax ne euh, tante ngeen ba sonn pour mu mhm. arrêter li muy def. Euh, nangu lu tax yow nga bëgg ko dem fajal sa bopp ba coow juddu foofu alors que mënoon nga dem porter plainte ne kii. dafay def loo xam ne jaarul yoon nit ñi dañuy liggéey muy parce que dëkk bi tam dëkk bi dafa am yoon. Mm-hmm. est-ce que yow yaa war a dem taxaw buntu këram ne ko lii ak laa ba coow loolu juddu aussi. waaw eh, maa ngi lay gërëm. Euh, Kajoor am ma corriger parce que néew moom di xulóog moom. non moi je rapporte. voilà très bien je corrige. Mm -hmm. moi sérieux moi je suis professeur je suis tenu par la rigueur intellectuelle. Mm -hmm. je corrige parce que lorsque monsieur injurié c'était pas dans le cadre d'un échange de parole non je suis désolé monsieur a récidivé parce que il a continué à déposer des ordures je l'ai en tout cas j'ai érigé le portable pour faire semblant de filmer pour le dissuader alors qu'est-ce qu'il fait maintenant il commence à injurier et même dans la vidéo yow sa tooj foofu la njëkk non c'est filmé amoo pour di ko filmer j'ai dit j'ai dit écoutez bien j'ai dit j'ai érigé le portable j'ai fait semblant de filmer pour le dissuader. mais attention ouais, mais non mais mais écoute monsieur. écoute monsieur non il faut écouter. il faut écouter. je désolé tu vas très vite en besogne. j'ai fait semblant de le filmer pour le dissuader. Mhm. alors il a commencé à injurier et j'ai la vidéo et je continue et même dans ma vidéo je dis monsieur X qui récidive et qui est en train de proférer des injures c'est-à-dire j'ai lorsque j'ai commencé à filmer. je m'en suis limité à ça c'est-à-dire c'était pas dans le cadre d'un échange de parole même la matrone un peu hésité bon voilà en tout cas mu arrêté doxatul parce que elle sait que am na portable bu ñu ne nii c'était pas dans le cadre d'un échange de parole alors donc je les filmé pourquoi je l'ai filmé parce que puisque j'ai parlé de quelqu'un ba nga xam ne day tuur ay mbalit di récidiver alors euh, dama ko war a filmer bu may saaga pour que bu may dem police di déposer plainte yóbbu fa lu dëgër parce que police tamit effectivement kenn du fa ay loxo neen bi mu ma leeree ne kii nii fi ne nii dëgër na bopp te man xam naa ne dina continuer di te man xam naa ne dina réagir violemment préparer sama bopp ma ne man police du fa demee. loo moo tax saa ngay jib. voilà léegi vous savez pourquoi maintenant le film. donc nga def semblant di filmer mhm. effectivement da nga doon filmer moo tax mu saaga la nga continuer filmer bi non non non yow man je vous prends juste def semblant. bi mu commencé injurier laa ko commencé filmer et le film est avec moi vous savez maintenant pourquoi je l'ai filmé vous savez en matière pénale et je parle sous le contrôle des juristes qui nous regardent. en matière pénale l' de la preuve elle est libre c' est vrai que nit loo filmer nit nii rek a priori parce que nit dafa am droit à l'image mais il faut écouter là. que vous avez fait. nit dafa am droit à euh, l'image euh, monsieur monsieur Gueye. Mhm. il a le droit vous faire des relances. que vous acceptez les relances. que vous l'avez dit tout à l'heure non mais monsieur copie alors monsieur. non tu mérites même pas d'être ici je dit eh, vraiment il faut qu'on se respecte aussi dañuy respectante wala ñu arrêter émission bi parce que lii aucun sens non, en fait. Non, c'est à vous de D'accord En tout cas, s'il mène. Vous, vous n'avez pas à juger sa présence sur le plateau. Oui, je suis désolé. Non, il est en train de mal se comporter. Il est en train de mal se comporter. Et moi, je suis pas... Il pose des questions. Il n'a pas de poser des questions. Il affirme. Maintenant, nag bu affirmer ah, du noonu yow nga leeral ko nga leeral ko vraiment. Oui, mais il faut me comprendre. C'est-à-dire, moi, je suis un plateau. Si quelqu'un qui a des argumentaires faibles et dans l'affirmation parce qu'il doit vraiment relativiser et poser des questions mais s'il affirme et s'il se trompe je le lui dis s'il se trompe nga redressé ko d'accord dama bëgg bu nga redressé ko mais amoo prérogative di fi juger la présence de qui que ce soit sur le plateau on est désolé on est voilà c'est un échange de entre lui et moi donc il faut le canaliser sinon on continue alors donc non mais je dis un truc. je parle à monsieur Kadi. non mais non boo ko ñëwee dañuy le débat est comme ça. monsieur Kadi non mais pourquoi tu sais pourquoi le débat est. allez-y ah, ah, ah, monsieur Kadi. j'ai filmé et je dis encore je parle sous le contrôle des gens qui eh, connaissent le droit. j'ai filmé parce que en matière pénale encore une fois. Mm-hmm. l'administration de la preuve elle est libre. Et moi, je suis pas n'importe, je suis pas fou pour prendre des risques. Et j'ai montré la vidéo à la police. Et je sais pourquoi j'ai montré la vidéo à la police. Je l'ai montré. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a commencé à injurier, c'est là que j'ai commencé à filmer. Parce qu'il il est venu et il a décidé pour me montrer que voilà, je vais verser ici des ordures. Alors je me suis préparé. d'accord léegi ñun lu ñu bëgg a xam mooy euh, lan nga jàpp ni loolu moo tax euh, plainte bi wala boog sa sa histoire bi jëluñu ko au sérieux da nga jàpp ni que waa ji dañ koy faral wala c'est quoi exactement. très bien alors je dis ici de manière péremptoire que le chef de police n'a pas fait son travail et je le respecte beaucoup parce que c'est un aîné mais il n'a pas fait son travail quand quand un citoyen porte dépose une plainte à la police pour un délit ou bien pour un crime l'officier de police judiciaire enclenche une enquête enquête préliminaire enquête de flagrance et mais il enclenche une enquête et il a même le droit de garder à vue et mais à la fin de l'enquête seul le procureur et habilité à donner une suite au dossier l'OPJ fait son enquête et il donne le, les procès-verbaux au procureur qui décide de la suite du dossier soit il classe sans suite ou bien il enclenche la procédure judiciaire. il renvoie les parties au tribunal. alors Lévi, on termine rapidement ban mhm. intérêt la police baal ma ban intérêt la police am. mooy le gars le chef de police qui est là ban intérêt la am pour faral kii à votre détriment. voilà très bien voilà pour ñu di seetaan donc je rappelle que eh, nee na c'est une petite affaire je rappelle aussi que nee na ma vous fichez de ma gueule pour que je retourne en arrière léegi intérêt bi mu si am nag moo jaaxalaate mooy man déjà man mi posé wu naa ay question lan moo tax. sama dossier demul parce que c'est pas la première fois que je dépose une plainte pour injure publique ah moi je suis allé tribunal une fois et j'ai eu de cause donc je connais bien le tribunal alors benn nit moo ma mettre la puce à yi ba nga xam ne dafa sol tenue wax nag fu muy liggéey nee na ma ndax ki nga dép ki nga porté plainte xanaa moo la nettalil benn nit moo la nettalil non moo ma wax ne diw ma ne naa mu ne ma xanaa ki nga porté plainte waaso nangam la foofu ma ne ko waaw waaso nangam la ma ne ah bon nag dinaa xool ji chef bi ban waaso la bokk waaso yi xaw naa daje benn waaye du wax ne loolu la de ma gis tamit ki nga xam ne moom laa plainte eh, ni misaal si misaal ni ma la ko mën a waxee Aïcha yow boo plainte nit sa njaatigéem ba muy dem mu di ko liiral plainte yi njaatigéem bu amee benn eh, mbokk ba nga xam ne kilifa police gu retraité la ba pare kilifa police googu boo ko koñ ak ki nga xam ne moo yor dossier bi sa xel dina tey. loolu loolu loolu sori na de doy waar laa lay wax nii dama ne kii nga porté plainte ñaati géem ba muy yóbbul plainte yi pour mu koy xoolal parce que moom mënul liir ñaati géem boobu mbokkam policier la ba nga xam ne eh, kilifa la bu retraité boo ko koñ ak chef de service bi nga xam ne moo yor dossier bi. kon yow bu ñu la déggee bu baax dañ ko faral. dama ne dañ koy protéger. dama ne si misaal loolu boo ko gisee sa xel mën naa commencé tey waaye nag ba tey du ma affirmé man du ma cuune de du ma cuune xam naa bu baax fi ba jëm. monsieur voilà monsieur Guèye man li ma lavant bëggee ñëw moom se un enseignant. c'est mhm. vrai que mhm. un jour bi ak porté na atteinte à ton ci sa ci li nga xam ne mooy sa mooy sa mooy dignité bi nga am. mais je pense que war nga am plus plus d'auteur ci li nga xam ne mooy mooy mooy situation bi du mel. Mhm. cest dire booy xool am na am na ñaari aspects yoo xam ne ñu ngi si am. bu la neexee nga dem police donc porter plainte pour un bi. mais est-ce que mënoo woon xool beneen aspect c'est-à-dire foofu li muy def si trouble à l'ordre public cest mi ngi troubler l'ordre public c'est-à-dire ñetti aspect la mhm. tranquillité tranquillité publique salubrité publique te moom mi ngi ci li nga xam ne mooy insalubrité publique est-ce que mënoo woon jël dossier bi porter ko feneen cest à ñu bañ a ñëw ci des aspects personnels c'est-à-dire daf mhm. mais ñu ñëw ci li nga xam ne mooy mbalit bi nga xam ne moom lay moom lay sotti ci mbedd mi yàq bi nga xam ne moom lay yàq ci mbedd bi donc nga orienté ko foofu moo gën nga ko doon orienté ci enjeu bi nga xam ne dafay ñëw plutôt sur l'aspect personnel Eh, très bien eh, monsieur vraiment et puis maa ngi kontaan si sa dal. voilà ak sa yar. voilà donc euh, léegi yow yaa ngi firndeel ne waa ji def na eh, ñaari eh, infraction mooy dafa def infraction ba nga xam ne eh, lié à jël ay mbalit di sotti ci mbedd mi muy benn ñaareel bi nit ñi di wax nga saaga donc muy ñaari mbir ya nga xam ne waroon nañ ko war régler te vraiment man waruma woon a ñëw ba fii si plateau bi nii di ko fi wax si war nañ ko régler depuis Bargny ma leen di jaajëfal nag parce que cette présence sur ce plateau est une est une thérapie cathartique c'est-à-dire l'extériorisation des traumatismes vécus vraiment c'est une thérapie. moo tax yéen traumatisme. bien sûr depuis le 24 janvier dama ne mon faciès et ma carrure fondent comme du beurre sous le soleil et puis euh, désolé mais. et euh, vraiment am naa lu ma metti loolu. d'accord alors on va terminer eh, eh, li may jeexalee ci loolu. mooy maa ngi leeral ne. xuloo ak police xuloo ma ak gendarmerie xuloo ma ak magistrat yi xuloo ak nguur gi man duma ma saaga nguur duma ma saaga ku ma mag duma saaga kilifa. maa ngi am problème ak benn nit ba nga xam ne dafa jël dooley police di ko xeex ak man di ma jéem a toroxal. d'accord na leer la dernière question oui. Euh, yow sëñ bi da ngay politique non homme politique nga. de l'autre côté oui. voilà d'accord euh, yaakaaruloo ne. je suis voilà nga def jàmm ñu ñu voilà est-ce que yaakaaruloo ne. vous avez dama daan seetaan en plus. voilà yaakaaruloo ne boo nekkee homme politique. Uh-huh. Euh, voilà di ànd ak ay hommes politiques comme li nga wax nekk directeur de cabinet maire affaire yooyu noonu euh, ay saaga. Mhm. yow en tant que homme politique warul sa waruloo dépasser ay ki kii saaga na ma. comme si nga jublu par si santé économie euh, emploi wax si yooyu. pour par exemple gindi sénégalais yi jéem a renseigner sénégalais yi que diw saaga na ma parce que fii Sénégal homme politique yëpp la ñuy saaga même Macky Sall président Macky Sall dañ koy saaga. yaakaar loolu yow comme que homme politique nga waroo am dépassement ngay saaga ngay nga naan kii saaga na ma si ay affaire personnelle yow waroo dep am dépassement boobu noonu nga xamante ne jublu si li nga xamante ne moo soxal sénégalais pour seen dundin avancé. waaw yaakaar loolu ah, loolu moo gënul gënul gënul nekk lu am solo que diw saaga na ma dama koy porter plainte dañ koo faral. voilà Aïcha donc Pape sama rakk eh, waaw sama rakk la <laughs> aw ma benn problème ak moom wallaahi te dama ko daan seetaan sama rakk la. mais ma koy fàttali ne. loolu moo tax nga ñëw fii d'emblée rek nga bëgg mu attaqué. waaw gis nga sama rakk nga. allez-y on sama rakk nga et puis dinaa xaritoo ak yow il faut ma jël sa numéro. léegi euh, li may leeral mooy bu ñu ma sàggoon ci politique ma muñ. kenn ci politique am nit kuy sànni ay mbalit ma wax mu sàgg ma man sàggul keneen man la sàgga te bu si politique affaire ba nga xam ne bu ma ko woowee sa personnel parce que booy yàq koñ bi. parce que nag man sama wax kon xam nañu baax. mais mais mais mais li ngay def c'est une c'est une politique locale. de ah, développement politique de développement local euh, ba tey ba tey yaa ngi jóg pour koñ bi seet et tout donc ci liggéey boobu lañ la saaga et ça c'est une circonstance aggravante c'est-à-dire le ñu saaga ma si defaru koñ bi c'est une circonstance aggravante maanaam sotti mbalit tax yooyu moo war a sax injure bi bu ñu ma injurier woon si ay caaxaan ni rawal politique ñu ne waaw mais si defarum dëkk bi parce que man nag euh, sans prétention je le dis man lu mu dee dee dama dundu réewu tubaab te bëgg nii réew moom mel sama réew mel ko may fàttali sama rakk eh, Pam kii Pam Malick ne sama loxo bi ku nee jaar na ci donc man kenn du ma jàngal li ñu war a def si société bu dee éducation taxaw naa si ba mu mat sëkk bu dee aussi développement local taxaw taxaw naa si ba mu mat sëkk alors eh, sans prétention aussi fi may wax ak yow nii. sama loxo bi commissaire jaar na si ku doon commissaire léegi élève bu doon commissaire léegi élève bu doon magistrat léegi jaar na si li ma gën a bégloo nag mooy sama benn jigéen ba nga xam ne tey jii du ma tudd turam mais kilifa la ci trésor mais pourquoi nga nekk si ay détails kon kilifa la ci trésor kilifa gu mag tamit di jëkkëram fii ci digg Ndakaar doon kilifa gu mag tamit ci réew mi fii ñooñu ñëpp jaar sama loxo donc man kenn du ma jàngal ni eh, la boo amee message booy lancé pour jeexal ci loolu waaw message bi may lancé mooy Euh, maa ngi wax euh, chef de police bi ne rëccuwuma li ma ñëw si plateau bi man ko am fula laa te du ma cuune du mag mu ñuy dab di ko yar man bi ma juddoo ba léegi maa def benn délit ci dëkk bi dund naa Europe boo jege fa ñëw Sénégal di fekk ni tey aujourd'hui j'ai cinquante ans kenn mosuma yóbbu police ak dëngate. waaye yaa ngi yóbbuwaate police. waaw yóbbuwaate moo jaadu. li doon ñaaw mooy ma yëkkati dóor parce que ki nga xam ne moo ma def loolu noonu mën naa koo dóor ba yow. sa man xaalisu bëri lañ ma ngénte waaye dama foofu nga war a njëkkee mais balaa ngay dem di ko filmer ba mu lay saaga léegi oui boobu ba nga gisee ni mu ngay xëpp mbalit fa nga ko warul a xëpp dëkk bi kenn du fajal boppam dëkk bi dëkk kan moo fajal boppam nga bind sa plainte mais loolu laa def bind plainte non ak ah, plainte bi lan moo ko jiitu da nga nekk di filmer ba coow jib si boobu moo dul man je convaincu que film bi sa film ba filmage boobu noonu moo indi coow li. parce que man doo ma gis ma nekk sama bu ma jékki-jékki gis ku ma filmé foo ma yóbbu. alors moom est-ce que wóoroon na xam nga yoroon nga da def semblant di filmer est-ce que moom wóoroon na ko ne. effectivement alors monsieur Kader monsieur Kader le procureur quand il apprécie un dossier ou bien une plainte. en terminant rapidement. mais c'est lui qui m'a posé une question. le procureur quand il apprécie une plainte. Hmm. il Et pourquoi monsieur a injurié Pas forcément. Ce qui l'intéresse, c'est le délit. C'est moi qui ai porté plainte. Mhm. Parce que monsieur aurait dû porter plainte pour aussi. Alors, euh, le fait que Madiko filmé, on l'a dit maintenant, il l'a pas fait. C'est moi qui ai porté plainte. Attention. Femme euh, qui est le dossier. Légui. Euh, bi mu ma saagee donc bu ma neexoon ma def neneen defuma ko parce que man kilifa ci dëkk bi moo tax ma dem déposer une plainte une chose reste constante mooy euh, et j'ai fait une correspondance à la DGPN à la direction générale la police Et j'interpelle ici le ministre de l'Intérieur. J'interpelle ici le ministre de la Justice pour que mes droits et libertés soient préservés. Et je précise aussi que awma problème ak police awma problème ak gendarmerie awma problème ak magistrat yi parce que ay policiers ay magistrats ay gendarmes yu am yar te xam seen liggéey ñoo ne fi ci réew mi kuróoma ak ñoom donc fi may jeexale moyen maa ngi wax chef de police bi ne su may jël si sama kër wallaahi du ma tëj sama bunt jarul mu koy daj. mais lu tax ñu lay jël si. yow lay wax non non non xam naa xam naa li may wax xam naa li may wax dama ne su may jël si jarul muy daj sama bunt dama ne man ab murit laa te dama ne sama sama royukaay bàyyi ma ma yeggale. dinaa yeggale de Aïcha dinaa yeggale Aïcha dinaa yeggale dama ne. dama ne dinaa yeggale de ab lébu ab lébu nga dalal ma ne dinaa yeggale dama ne man sama royukaay bàyyi Serigne Saliou Mbacké la bii nga xam ne si tukki bu yàgg bi te metti te jooyul yuuxuwul wóotewul ndimbal dama ne man su ma ragalee eh, ab moom chef de police boobu noonu dootuma gor dootuma jullit dootuma murit sama ñaari doom yi nga xam ne tur yu baax la leen tuddee eh, waajuru Cheikh Amadou Bamba dinaa soppi seen i tur kenn ki ñaar laa si am kenn ki dinaa ko tuddee sagar kenn ki dinaa ko tuddee mbalit man maa ne de police bi bu ñëwee di ma jël si sama bunte wallaahi du ma ko tëj merci beaucoup bu ma ko dajji te bu may fitalit ah na ko bu ñu ko def secret. jërëjëf voilà bu ko defee samay doom xam suba ban ban bët lañ koy xoolee. dama foogoon ne dossier yu bëri. bon dinañ waxtaan waxtaan bu kii quoi franchement bon. Euh, oui monsieur. merci yow sama petit frère nga. maa ngi lay conseillé nga dem wuti waat xam-xam. parce xale maa ngi jaajëfal Sénégalais avec ta complicité ñu dikkaat ci plateau bi